asalaamaaleykum alaikum yi ñoo ngi ziar di wax euh, continuer de vous abonner et activer la cloche euh, ndax du ngeen raté ci vidéo donc nous euh, ñëw ci match bi France ak Mali ci coupe du monde 17 donc ku ne ni actuellement équipe des coupe du monde bi Mali rek ci donc kon Mali que ça soit Sénégal Maroc Burkina Faso ñoom ñëpp éliminé nañu kon Maroc euh, kon euh, waa Mali ñu ngi seen ginnaaw di la wax on espère que ne da ngeen gi France bi nga xamante ne euh, illégalement la ñuy joué seen match parce que dañu leen a waroon a disqualifié waa FIFA daf leen a disqualifié parce que dañoo utiliser joueur boo xamante ne dafa inéligible ci seen équipe bi donc je pense que ni am na ay faits yoo xamante wane ne que ne dañ leen waroon disqualifier am na ay preuve également yu wane que ne FIFA da leen a waroon a disqualifier donc euh, bu ñu sukkandikoo ci loolu rek dañuy jàpp ko ne France ni muy joué euh, ci diggante moom ak Mali c'est illégalement donc loolu nag war na tax képp koo xamante ne doomu Afrique nga da ngaa war a daw euh, da ngaa war a supporter ki nga xamante ne mooy Mali mu gagné li nga xamante ne mooy match bi ci diggante moom ak France wélu li di commenter yaa ngeen jëf